mel ni ñoom toog di jooy ngir moom wala ci biir problème.
allahu akbar.
ñu ñëw seen tiim seen ba taxaw. sama baaraam ma ndox ma daw. bay si tuuru mel ni baaw soxna si yéemu for ko leen. mu naan ko yaay bu yéemu lii. yéemu ëllëg na ngay jëlee nu dee. waaw jàppalaa jarakeem ay bu garam. dafa taana ma yaatu.
daman ma ba njol makka yaa leen gën rasulullah yi nee na may jëkk ñëw ëllëg ci buntu aljanna.
Abdou ah nee nañ bu ma ko téye Abdou feede la kan la
de de nangul xaalisu paala jox Abdou.
ah
nangul nangul jaaro ba ne ci Fatou Thiam jox Mansour. yéen waa télévision.
ana daman ma ba njol makka yaa leen gën
ok. man sama daal damay ne. jërëjëf. sii dama jóg la tamit ci suba.
ay waay nene fekk sa tan
waaw. toog leen. maa ngi woon ci yoon wa.
ah ba bërset maa ngi woon ci yoon wa.
nee na mi ngi toog ba bërset jógewul fii
xiif. Kiif, kiif. xiif. ok xiif.
والخالق مدح المدين جل خالقه آه، آه، آه.
tey est-ce que
وإليك من ترجع شباب والعالم
أنواره لما بالكائنات كالشمس في السماء طلعت وقتاي النبي
لمن النبي جل وعلا خالق وعالم
la lauma la lauma bu dul woon ak yonent yàlla Muhammad لولاهما la lauma dogoon ko nag rasulillahi
لولاهما la lauma dogoon ko nag ki tax yàlla bindu nu لولاهما la lauma bu dul woon ak borom barrière waar ba ca Medina la lauma xalaqal anwaaru qad tataat la lauma bu dul woon ak rasulillahi yàlla du bind dara nabiyo Muhammadu Lamin Jarlaawi
وين
ok.
كامل إكليل مسلم waa àjjana ñu ngi tuddee rasulullahi jaamu yàlla bu tedd bi waa safaraan ko tuddi jaam bu sell bi jéer jéer ni ñu ko tuddi ci aljanna ak safara nga doon wax bul déglu waa àjjana nañ ko tuddee jaam bu tedd bi lañ ko tuddee waa safara ñoom jaam bu sell bi lañ ko tuddee te yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam bu dee doomu aadama yi bu dee doomu aadama yi bu dee yàlla mu ngi ko tuddee paaxa yaasin paaxa mooy firi ku leer ki yaasin mooy firi sangu yàlla bind lépp محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم أو تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قد اشتمل اسمه الشريف على أربعة أحرف نجاية
loolu mat na déglu ci way gi mat na déglu ci firi bi wax ji piir la waxi ni piir Abdou nga ne
وقد استشمل اسمه الشريف على أربعة أحرف هجائية وقد اشتمل وقد اشتمل lamb na ëmb na enveloppé na ismuhu sharif tur yonent bu tedd bi ala ahrufi arbaati hijaiya ci ñeenti xaraf ci alphabet yi لكل حرف منها مزية ومقام tur yonent yàlla Muhammad xaraf bu ne am na ca ndollent am na ca maqaama ميم miim bu njëkk ba حرم دلو xaaga ميم nga jot beneen miim nga دال jot daal kay kay kay faqad ishtamala
وقد استثمر اسمه الشريف على أربعة أحرف هجائية moo tax muy naasir alxaq bilxaq nekk talaat alxaq bilxaq قد استثمر اسمه الشريف على أربعة أحرف هجائية faqad ishtamala lamb na ëmb na enveloppé na ismuhu sharif tur yonent bu tedd bi ala arbaati axrufin xijaiya ci ñeenti xaraf ci xarafu abajada bi لكل حرف منها مزية ومقام xaraf bu ne njol makka am na ca ndollent am na ca maqaama
ميم miin bu njëkk ba حرم دلو xaa nga cay teg ميم teg ca miim دال teg ca daal عمد tur wa mat فميم لولا ما من نبي
miim bu njëkk bi amul benn yonent ولا رسول wala kenn ku yàlla yónni إلا خلق من نور طلعت البية kumu kumu ak fumu ak lumu ñu ngi ko bindee ci leeru rasulullah وهو أصل mooy cosaan والكل منهم فرع بلا شك ولا إيام njol makka ay cosaan ni loo fi gis branche la والحاء xaaga حمن njol makka ay kiiraange لمن آمن به
ku ko gëm njol makka doon na sa sécurité بي
bii ci daraje rasulullah yi ku بي
gëm njol makka mucc nga ku بي
gëm njol makka raw nga ko بي
topp te topp ko yàlla raw nga ku
بي ko gëm te topp ko yàlla dugal la aljanna واتبع ملة إبراهيم الحنيفية ku topp diine Ibrahima bañ jox rasulullah di nga sell da nga am lu sellal la وحاش من صدق برسالتي suñu dëkkal yónni gi yàlla yónni rasulullah te lépp baax na tey وتمسك بسنتي ضام ku jàpp ci sunna njol nag surtout jamono bi yowmal qiyaam boo dekkee ca saaba ya ngay bokk ميم الأخرى mii mu ñaareel ba مفتاح رحمتي njol nag kay yor caabi aljanna والدال daal ba دعوة الشباب nee na may woote ramm ëllëg ana awalu naasu xurujan ida buxisu لأمتي
yowmal qiyaam may taxaw naan sama xeet أمتي
maanaam sama xeer.
متين maanaam sama xeer.
بيانه jol makka bu neex sama xeer yàlla nu sama yërmande.
نسبة النبي المصطفى nee na maa ngi lay jàngal askan wi jol makka.
صلى عليه ربنا وشرفا ku bëgg a texe buñ tuddee yore ci bi fi tasul te saraxe moo tax mu jóge ci moom.
صلى عليه ربنا وشرفا Allah yàlla na doon xéewal alayhi ci yonent bi rabbuna sunu borom. macha allah faatamul ba li tedd nga am.
ونسب المختار محفوظ askan wi jol makka luñ wattu la ku ci bokkul bokk ci.
إلى عدنان بالإجماع عند الفضلاء mu dem ba ca Adama. maam mu am maam mu baax.
وأنا أشير الإثم كل ma ne jol makka mooy sangu képp yàlla bi.
منهم بحرف منه مشتغل ma ne yonent yi yëpp kenn ku ne dañu laa branché ci benn leer ci xarafu turi njol ma مع شهل عاقل كمن كالغفم فمن كخم أمن مع إله نازك من مع ني محمد عبد الله شهن شيبة هاشم عاقل عبد المناف حسين كخم كلا مرات كالغفم لا مرة
نعم
سيد الوجود وقبة الشهود من معكم من فضل الوجود صاحب التاج واللواء والله العظيم هكاي هكاي جميل شهرتي jox leen ko وصافي الكلام والله.
مكملا للعبد مكملا او تعافي moo gën a métti yëpp ne la ku yàlla bind moo la gën ku ñëw gannaaw moo la gën wallahi kawar dër bu ñuul kukk. wallahi wallahi
هذا
تأثير الطرف أدب العين شريف الخواب أبيض الخد مفلق الأسنان
Sëñ Abdou Sëñ Abdou may leen ma tëj ma ma tëj
يقول ضربتين مبالغة نعم إلى تكلم خرجت نور من بين الهنايا ونوري وبحر قسام لا تكدر الدلاء okay
borom kaala gii ne keecootu baayam nee na
am na lu xew de dama doon barak li ku bëgg a cëppeelu ndax five o'clock mi ngi doon jot waaye boobu baytu moom du ma ko leb Cheikh Hadji Mansour ibnu Cheikh Al Hadji Malick moo ko bind 44 ci kanamu rasulillah ci madinatul munawara وبحر قسام
okay.
لا تكدر الدلاء بشاطئ من جاء
أصبح راضيا
mu ne Hadji Mansour si ibnu Cheikh Al Hadji Malick si moo ni njool Makka wa baxru ko sa géej taamin aji yëkkatiku la fees dell laa tukaddiruhu du ko nëxal addila baak yu bare jamoo dalwin bishaatiihi ci tefasu njol makka man jaa ku fa ñëw di wut ay ngëneel asbaxa nga xëy mujj raadiya di aji kontaan
na ñëpp def nii nu magal yonent yàlla Muhammad Cheikhul Haaji Mouhamadou Mansour Sy Maalik Mansour a jeexal xeeti muñ jaaxal na bépp xol bu bañ gor si réewul farlu iñaan bu génnee diina lay defar ba yàlla tëralee farataam na bi ñëw tërali sunnaam Mansour a day foofa imaam mi ngi firi nii Cheikh El Hadji Mansour Sy Maalik nee na yont yàlla Muhammad sayidul wujud wa kulli shuhud
wa bahruka taamin لا تقدر الدنيا بشاطئ من جاء من حراب يا sëñ rawaan sëñ rawaan يموت بلا مني bayt boobu وعبد الله يمر بلا من
mu ne baytu boobu bala ma ko firi tant bépp dañuy ànd fitasu bigi njol makka bigi xaaji mansour wala ma yem mu ne wa baxruka sa géej yow rasulullahi taamin taamin dafa yëkkatiku laa tukaddiruhu du ko nëxal addilaa baak yu bare lu ci lu ci kopp yi bare bare bare sa géej gi day teere bi shaati yi ci tefasam man jaa aku fa ñëw bi shaati yi ca tefas ga bul dugg de yemal ca tefas ga asbaxa nga mujj raadiya di aji kontaan Cheikh El Hadji Abdoulaye Sy Maalik nee na
allahu akbar
أكرم بي من سيد الحمولي bay dabaax malik góor ga ma daan tudde cheybat alhamdi ca béjjaaw ba rafet ba ca muñ ga ca lewat ga ca maandu ga ca jàkkaarloog ñépp ga nee na akrim bihi kaw téef tedd nga min sayidin cib sang xamooli ka daan yanu أبا البراء يا والد البتول ku ñu mas a lor njol makkaa lay yanu lor ya ba yëgoo ne def nañ la dara أكرم بي من سيد المرقاء Haji Ousmane sa bàyyi ba ne akrim bihi kaw téef tedd nga min sayyidin ca sang ba meex poo i ka daan maye waa kon ba بحر yoon makkaa gën a tabe ci nit الهدى ñi بحر الهدى خلة الأنبياء baxril huda kay géeji njub ga xiirati lanbiya yi kay tànneef ci biir yonent yi أكرم بي من شافع مشفع akrim bihi kaw téef baax min shafiin ci aji ràmm ji nit ñi ëllëg mu shafaayi ka ñuy ràmmloo nit ñi ëllëg عند اشتداد الهول يوم الفزع
fan lañ ko koy ràmmloo bay abdu ni inda ishtidaadil hawli bu ñu yeggee ëllëg ba njàqare ma tar yowmal fazaai ca bisu njàqare ba شيخ الحاج عباس ما إننا أكرم بي من منقذ رحيم akrim bihi kawteef mbaax min munqidin ci kay xettalee ëllëg raxiim yi képp yërmande njool màkka ku ne moo la gën a yërëm sa yaay ak sa baay أكرم بي من مرجع كريم baay abdu ni akrim bihi kawteef ñel na njool màkka min maljain ci wéeruwaay ba raxiim yi ka di aj yërëme أكرم بي أكرم به أكرم به أكرم بهذا العبد عند ربه أكرم به أحلم أكرم به أكرم به أكرم بهذا العبد عند عبد.
ربه may ma ma ñëw
lem neex na waaye du dund lem neex na waaye du dund mbooloo mi maa ngi leen di tàggu maa ngi leen di tàggu cinq heures moins vingt
مولاه إذ مولاه خيره عن الزخارف ذا زهد وذا شمم يكسي كسي سيدي حاج مالك نانا ينت يلا محمد dañu ko dendaleel ñaar mu tànn benn ñu ni ko lan lañu ko dendaleel mu ni ko sunu boroom daf ko soxla yónni malaakal mawti mu ñëw ni ko sa borom nee na bu la neexee nga faatu tey bu la neexee nga xaar ba àddunay tukki nga door a dem mu ne tànn naa giseeg yàlla tey ñu ne ci tànn gim tànn ci tànn gim tànn giseeg yàlla ci saasi di nga ci xame ne moo ëpp maqaama ñëpp ñu ne ndax yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wasalaam këram la génne yow daaw góor jëm jàkk ji di julli ci benn gan ni ko jàbb loxo jàmma sante tuuti Ibrahima ni ko yeggal ci kër gi ma ñëw ñu teral la mu ni ko man duma lekk mu may la ndox nga naan mu ne man duma naan waaye yow lu ñu lay terale mu ni sarwu gi rek ñu ni waaw lu tax sax Ibrahima man fee nekk di wax ñu ne dafa def ay minutes mu ne ko kaay ma yónni la ci yàlla soo demee ni yàlla moo ne woon may xaritam xarit boobu ba noppi ñu deemeet yi bu nga ma ko def samay xaritam waaye ñu ko nag kiliwaay ba beneen malaaka moom suñu yaay dellu si ñu ko yàlla nee doyul sa xaritoo ko ndax moom du du wax ci ca dañ inna allaha la yuxlifu l-mii'aad waaye nee na li ngi lay xamal ne bu woowee xaritam xarit ba war ko sawara mu waaw dañ koy kaay tam mu ne ko di discuter yénti yàlla Muhammad dañ ko ne kaay mu ne tànn naa fekk yàlla te benn question rek lay posé mu ni ko ma nga asamaan ñeente lu ma fay def mu ni ko mën a yëg yàgg rassemble ko jàll sa ruuxu set mu ne ko dellul nga laajal ma ci biir laajal ma yàlla nan lay def ak sama xeet ñëw ak yàlla xotti asamaan yi yam fa mu war a yem questionné jibril jibril naaw wax ak suñu borom suñu borom ni ko soo demee ni Muhammad may naa xeetam juróom-ñaar fukki junni soixante-dix mille personnes daañu dem aljanna bi xeyri xisaabin wala iqaabin kenn du leen rek la kenn du leen mbugal mu ñëw saabal ko yol ma ko ni ko xeebu ma ko waaye ma dolli mooy lam ni fastazattu rabbi azza wa jalla na ma yàlla dolli soixante-dix mille ci ay nit yu ma gëm ak tabeem ëpp na lool malakal moo ci dem waxaat jibril xabaar ba jibril waxaat ko yàlla sunu borom ni ko soo demee ni ko may naa ko soixante-dix mille personnes ya kenn ku ne yóbbaale soixante-dix mille alaaji sëriñ mbay si mu ni ñokket ñu ni ko àndal ak soixante-dix mille personnes alaaji jaraaf bay mu ni ñokket ñu ni ko demal ak soixante-dix mille personnes alaaji seydu faal mu ni ñokket ñu ni soixante-dix mille daaw góor rabbi aziz ku ni ñokket ñu ni soixante-dix mille personnes yool makka ni yaa rabbi ma asaluka bi nafsi yàlla ñaanuma la ngir sama bopp de wala li aminata allati wadaatni ñaanuma la ngir aminatu mi nga xam ne moo ma jur wala li xalimata allati ardaatni ñaanuma la ngir xalimatu mi ma nampal wala li fatimata binti ñaanuma la ngir fatimatu mi nga xam ne maa ko meññ wa innama adeoka bi ummati bi ummati ummati sama xeet sama xeet sunu borom ni ko bu yomal xiyaamee ba taxawee naan sama xeet ba taxaw naan sama yërmande akay آخرامومت بايرامومت باتناك سب رسول الله نيني مرمبر يرواربا لقد ساد من ياتي كما ساد من مدى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سيد المجاهدين سيد من ملاهما مولا ni déglu leen ba ñu bégaat ba xol yu fees nag ngeen xam ne ñoo séddoo ku baax mooy sayiduna muhammad borom bareer waar ba ca Medina laqad saaba man yaati
yàlla nee na ci alquran lu ngeen julli julli ak lu ngeen woor woor ak lu ngeen azaka azaka ak lu ngeen aj aj makka li feek d'accord agu leen yéen ñëpp à l'unanimité à l'unanimité ci waxu rasulillahi d'accord agu ma ci li ngeen di def ndax maa ko tànn comme maa ko tànn lu mu tànn tànn leen ko lu mu wax dem leen ko lu mu digle def leen ko lu mu tere bàyyi leen ko mboolem teraanga yi ak xéewal yi yaa ko waral yaay sunu wasilatu xaqan inda rahmaani laqad saada man yaati kama saada mahmada ñan makka yaa leen gërëm na ngeen xam ni moom la yàlla yónni ci mbooleem nit ak jinne moom la yàlla def yowmal qiyaam mooy jiite xeet wa nga xam ne dañuy biriyee ngir fañ daan raxas ci njàpp i'lam annahu rasulu rabbul alamin wa xaydu qurril muhajilin wa sayyidu jamiil anbiya wal mursalin walazi kaana nabiyan wa aadamu bayna almaai wa tin raufun bil muminina moonu gën a yéram sunu yaay ak sunu baay wa shafiun bil muznibina ñi am bakkaar moo leen di ramm ëllëg saaxibul xawdil mawruud mooy borom déeg bu ñu préparé ba wal maqaamil mahmuud wa liwaayil maaquud wa shafaatil uzma fil yawmil mawuud imaamun haashimiyun wa rasulun qurashiyun نبي حرمي مكي مدني أبطحي تهامي أصله آدمي وحسب إبراهيمي ونسب إسماعيلي وصرس علوي وقبطة إجاسي رسول ثقلين لا بالطويل الظاهب ولا بالقصير الداني أبيض اللون مشرب بالحمرة ngane lan كنت أولا بالحق nee na man la yàlla jëkk a bind وآخر بالبعث nee na man la yàlla mujj yónni man Muhammad kuy samp ñaari tànk asamaan di la tiim suuf di la toléré rasulullah sa sang tur yoon ci yàlla Muhammad ay secret la ëmb secret yi danaa ci laalas la
فقد استشمل اسمه الشريف على بعد عرض الهجاية sëriñ Abdou Abdou Aziz Sy Ndour day na waar de wa qad istashmala ismuhu sharif ala arbaati ahrufin hijaiya tur yonent yàlla Muhammad nee na boo koy bind quatre lettres ko composé ok alaaji Biram Njaay maire ndeyu dëkk bi moo ma jox junne maire mooy ndey waaw suñu bàyyi bu saaxo yal na yàlla yokk leeram góor gi Mamadou Diop maire yaayam dafa gaañu ñëpp ñëw ci dëj ba di waxtaan mu ne patt rek bañ jox ko parole mu jóg jox loxo bàyyil xaaj Abdou Aziz ni ko sigil ndigaale sa maam waaye sigil ndigaale sa maam pap Sëñ Abdou ni ko man maam mu ne ko Mamadou Diop du mooy maire mu ne ah mu ne ko maire am gaañu maire maire kay maam la
sallallahu alayhi wa sallam وجود صاحب التاج واللواء وقد استشمل يعني وقد استشمل اسمه الشريف وقد استشمل لمبنا أمبنا اسمه الشريف ترينت يلا محمد وتدوى على أربعة أحرف هجائية ينت حرف الفابيبي مبنة رسول الله لكل حرف منها مزية ومقام xaraf bu ne jol makka am na ca ndollente bu mu jagoo moom kenn am na ca maqaama bu ñëpp ñàkk miim حرف جره ak xaa miim ak beneen miim daal
miimun miimun wa xaa summa miimun kada kurirat wa baadaha daalun kama qad kurirat ومن الله ما من نبي ولا رسول إلا خلق من طاعة البرية Abdul Aziz nee na miim mu jëkk ma ca turu yonent yàlla Muhammad amul benn yonent wala ku yàlla yónni lu dul ñu nga la bind ci leeru rasulullahi ga
والآخر xaaga حمى لمن ونبي
nee na yow naka kiiraange la sécurité la ci ku ko gëm والطاعة التي لا على فيها gëm ga nag moo di wattabaa te mu topp millata ibrahima xanafiya diine maam ibrahima ju sell ci wa aasha te mu dund moom kooka wa sadaqa te mu dëggal bi risalati yi ci yónni gi yàlla yónni rasulullahi mu boole ci nag jàpp ci sunnat rasulillahi di ko roy ci wax ak jëf ak melo keneen miim ba njol makka ay caabi yërmande yàlla nee na daal ga yowmal qiyaam mooy woote ramm nit ñi njol makka nee na may jëkk ñëw ci buntaal jann ëllëg yowmal qiyaamati nee na may waafu ñaadam ñaadam ñëw fekk ñëpp ni nem ma taxaw ca buntu aljanna dóor ca sama loxo yi tedd ya bëkki néeg bi ne kii fëgg kan la ma ne ko man na Muhammad mu ne yow lañ ne woon bala maa ubbi buntu bi na nga egsi maay jëkk dugg ca buntu aljanna man rasulullahi Allah nee na ajjana araam na ci mboolem yeneen ci lu dul bu ma duggee ba noppi ajjana ajjana araam na ci mbooleem xeet yi lu dul bu sama xeet duggee ba noppi nee na may dëkk dékki xotti suuf Babacar Omar Ousmane Aliyun topp ma ful di topp ci sama gannaaw bu ma la toppee fanaan fi lem neex na waaye dund zip down toog mbooloo mi maa ngi taxaw foofu maa ngi yamandi foofu nijaay Ablaye Diagne wax na dëgg nijaay Ablaye Diagne wax na dëgg lii ak ngoon jagalatu ko ak sax saan jagalatu ko guddee fi sës te Seydi Xaaji Malik mbàndum lem la foo capp boo maccee neey yaatal leen ko bu ko sëriñ bi diglee ak magab yu baax ya ñu diisoo ci ñëpp yëgoo ci ñu def ko man mool su ndaw laa loo saa laay daw bu ma ci sëñ bi dugalee du ma maa ngi fi yem ba beneen yoon